Euh, Pam Ngiraan si coach su cadets ASC Pastef ah jàngat bi ma ci am mooy liggéey la rek ndax li ñu yóbbu final du dara lu liggéey waaw ah, liggéey bi nag fii si terrain bi nañ ko tàmbale boobu léegi cadets yi ah, bon ils ont suivi les les directives de leur coach et ils sont arrivés en finale. ni ñu koy waajalee comme ni ngeen ko gisee nii ci terrain bi rek engagement ak détermination loolu lañ doxee ba egg si te loolu la ñuy continuer mais une finale nag ça se gagne ça ne se joue pas waaw loolu daal laa amoon lu mooy wax ci engagement booy ñu continuer waat liggéey bi comme ni ñu ko gisee nii ñu ngi ci ci gën a préparé wu incha allah yàlla mooy ñu ndam daal. depuis xaw ma ban année la mus na am mais gëj naa am cadet dem finale senior dem finale. mentalement bon. le moral est bon supporters yi moom bu ñu ñëwee moom donc dañuy yokk motivation dañuy yokk engagement leen di ñaan non violence ñoo fekkee final bi supporter ñu gagné coupe bi andiwaat ko fii. waaw final booy ñoo koy def instant di ko préparé comme final comme ñu préparé final senior daal ñoo koy préparé noonu ndax yaakaar naa ne final bi si ñun daa nekk revanche parce ñoo dooroon 2018 final cadet yaakaar naa bii nii si ñun revanche la man moom pour man coach bi revanche la ci man. suñu objectif nag daa romb final bi dañoo bëgg a dem départemental ba dem phase nationale loo xam ne koñ a dem fi cadet phase nationale senior dem nañ 3 ans mais ba moom xam mag moom sangomaat kenn du wax du wax ay bés ñun miin nañ ko xam nañ ñu koy préparé xam nañ yoon bi. man daal li may woote waa koñ bi ñëpp ñu def mobilisation ñëw ci ginnaaw. kade yi supporté lañ ñu jàpp ne comme comme senior gi demul kade gi mën nañu koo gérer ñun ñëpp ñëw comme nañu mobilisation bi ñu def contre gan bi gan bi passé ñu defaat mobilisation ba toll noonu ñëw soutenir booy ñu jël coupe bi incha allah